parce que génne faruma mhm. wane la vérité mhm. ba ñu génnee vérité bi nag peut-être xëy na loolu am ñu frustré ñu mer mhm. commencé di expliquer ñu gis ne c'est la réalité nit ki contrôle mais da ngay wax lii nga def parce que entre temps am na benn euh, micro bi ñu fi publié woon si le douze bi ñu naan micro bi ñaata lañ ko ma jaayee ba ñu naan Bintu Seck may na Wally Seck euh, jëndal na ko micro bu ñaata xam nga ñun mooy li ma lay wax man je suis professionnel. Mhm. ñun dañuy dem euh, euh, journaliste d'investigation lañu tey soo ñu nee lii lii lay jar. Mhm. Google mi ngi fi prix boo soxla danga koy am. da nga mhm. léegi après ma dem Schneider. Schneider jox ma micro bi gën a cher lu muy jar. c'est juste pour euh, wan la benn affaire rek. d'accord pour wan la comment les gens. lii lan la Schneider microphone Thomas de France. Le micro Schneider le plus cher coûte 7000 euros. Mm -hmm. J'ai vu dans la presse ce matin, on parlait du micro qui coûte 13 000 C'est faux. <laughs> Schneider mi defar micro. presse sénégalaise dañoo bind bindu sekk may na waali micro buy jar treize mille euros Schneider Schneider ne man maay defar micro bi mhm. mais micro bi gën a cher sept mille euros lay jar amul micro buy jar mhm. treize mille euros c'est-à-dire très bien ay mensonges yoo xam te ne dañ koy créer c'est pour faire le buzz mhm. man màgg naa ci loolu ku bees nag kuy soog a ñëw loolu da koy jaaxal parce que su déggee information ci diw da koy jaaxal